liggéeykatu ëttu attekaay yi ñu gën ko xam ci sudjus dafa wàcc banque loxo bi mu doon def ci fan yëlee ci gannaaw xam ne buñ koy xayma mi ngi tàmbali le 15 juin 2020 taxaw euh, mercredi 26 août 2020 maanaam fukki fukki fukki ayu bés ak ñetti fan muy juróom-ñaar fukki fan yoo xam ne SYTJUST di syndicat bi nga xam ne moo boot ñiy liggéey ci ëtt àttekaay yi bankoon na ci loxoom boo xoolee wala boo leen xoolee ni xeex bi taree woon duñ ciy gis pas-pasu liggéeyu katu ëtt attekaay yi pas-pas boobu xam ne day wane ne rek ñoom nanguñu li nga xam ne duñ ko am tubaab di ko wax ay ak acquis ñu fokkati ko seeni loxo te bu ñu xoolee droit acquis yooyu dafa nekk loo xam ne duñ ko waxtaan ak gouvernement bi daal di ko def ay fas gouvernement bi bëgg ko fecc te li ci gën a doy waar fas yooyu ñu fasoon njiitu réew mi moom moo ko xaatimoon ah waaye nag li olof bi wax gannaaw ay jàmm ñuy rafetlu ah jubo bi nga xam ne walla ndaje bi nga xam ne am na ci diggante ministre la justice ak syndicat bi ñu dellu ñuy wax dialogue xool di waxtaan ndaxte olof nee na réeroo amul ñàkk waxtaan a am comme ñàkk waxtaan bi am na te moo ñu may moo ñu mayoon keroog ñu ne nañu dagg xeex bi ci ñeenti fan ñeenti fan yooyu nag mat na muy quatre-vingt-seize heures surgis waxtaan ak ay mbokkam waxtaan ak ay nitam ñu ne nañu gën a yokk euh, maanaam bàyyi xeex bi xeex bi nga xam ne euh, duñ ko ajoon fi ñeenti fan léegi du ñuy gën a yaatal aj bi maanaam daal suspendre nañu moo door de grève bi pour permettre garde des sceaux ministre de la justice jëwriñ bi nga xam ne moom moo yilif ñay liggéey ci ëttu àttekaay yi mën a mottali engagement yi nga xam ne jëloon na ko ci wàllu fay travailleurs de la justice yi prime yi nga xam ne amal nañ amal nañ leen ko ci weeru euh, septembre 2020 waaye taxaw tamit tem ba nga xam ne comité bi nga xam ne moo war a saytu statut yi ak euh, fonds commun bi def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee waaye comme li olof Njaay di wax lu amul seede baaxul moo tax bis naka tey ñu jël seede askanu Sénégal gi yépp ci wareef yi nga xam ne ministre de la justice da ko teg boppam te ba mu koy ba mu koy tegoo dafa fekk ay doomu réew mi ñi nga xam ne lu ñu lañ wax wala luñ la jox wan nga ko mën a fayee bor ñooñu di ki ñuy wax bâtonnier de l'ordre des avocats muy maître Papa Leyti Ndiaye moo ko fekke woon ak maître Doudou Ndoye mi nga xam ne nekkoon na fi ministre de la justice ak kilifa yi ñuy woowee Pape Birama jàll ak masaar saar ñi nga xam ne ñoo fa doon représenté au conseil du dialogue social ak professeur Ogo Seck mi nga xam ne mooy président de l' association des juristes africains ak ki nga xam ne mooy ma demb Sock xam ne kenn dootu ko présenté mii jiite centrale bu mag bii ñuy wax sas